ñetteelam yu mujj def na fi saamet bu neex moom Mor Kang waaye Youssou Ndour bàyyi ko ca wàll nga xëppoo soow ba weex tàll mais pitax yi daw def saamet nañu wax si pitax yi waaw pitax yi cinq pitax la sànni pison sànni nañ ki mais mënul génn stade mais sax mel ni ceer bu lamb bi jeexee pison yi mën naa ko jël suppa ko mën naa jël suppa ko ndax sama yaram bi instant lu mu si yëg maa ngi yàlla rek nga xam te lii may arrangé kon pison yi nañ ma ko bàyyi xel ba lamb ji jeex waaye cey Mor Kankang Youssou Ndour yu mën di dégg Mor Kankang Youssou Ndour génn na cinq pitax ñoom ñaar sànni mais benn naaw ci ñoom ñaar ñëpp pare nañu ginnaaw bu mu sànnee pitax yi dafa jël li nga xamante ne mooy soow ba nga xamante ne waalo la jógee moom Youssou Ndour daal di ko sottee ko dawur stade bi bañantu Mor Kankang feelu ko fee ni ko fii tey nan fi bonde te fii muus di fi naanee ñeex lépp lu def rek Mor Kankang da koy teg mi ngi woote téléphone xam naa da daan bi moor pare na tegtal yëpp pare na mi ngi ci digg géew bi nan war a daanee waaye tey damaa gis signe victoire signe de victoire daa am ci benn mbër bu ma ko gis ndax mbër bi il est mi ngi concentré wu gis nga am na loo mi ngi liir adversaire mais gis naa mbër boo xamante ni dafa people bi people bi dafa xaw a sóoraale bi de trop ndax damay gis ni Mor Kankang bu public bi yuuxoo rek day ànd ak public bi te Youssou Ndour dafa bëreeg ñoo xamante ni Mor bëreewut ak ñoom kon Mor la def ndànk xam ne ku muy la caatu yoo ko daan bee ndaanaan la waaye Youssou Ndour est-ce que tey ni mu concentré woon nii ak ni mu resté serein nii noonu la war a bëree ki nga xamante ne moom mooy Mor Kankang parce que nekk na combat boo xamante ni nga pronostiqué tey boo nee Youssou moom favori d'accord naa parce ni ñu Youssou Mor Kankang bëriwut ak te ñun ñu yuusu bëre Mor Kankang bëriwut ak ñoom mais attention Mor Kankang dafa bëreeg Alioune Seye Junior te Alioune Seye Junior génération Youssou Ndour la. waaw ndeysaan parce que géejawaay la te mbokk nday koy jur waaye Mor Kankang mii moom indi na doole dem. doole indi na confiance. doole indi na confiance waaye Youssou Ndour combat bi combat de concentration la moo tax dafa concentré wu te Balla Gaye dafa ñëw ba ci moom dégg ko te gis naa ni waaw mbër yi am combat yëpp tey dañ koo wër ndigal caatu Daouda Fall fils de Balla ñoom ñëpp tey dañoo bàyyi seen i combat ñëw gunge ki xam dama ba Youssou Ndour li may won ni carrément Youssou Ndour am na lu muy jariñ ci école de lutte Balla Gaye la preuve en est que gis na tey waa école de lutte Balla ñëpp ko gunge xale yu ndaw yi nga xam ne sax dañ ko ñëw indi Aline Seydoux gis naa ko fi Youssou Ndour daal en tout cas xew nekk na boo xamante ne tamit am na respect waa Guédiawaye ndax tey loolu laa gis tey ga waa Guédiawaye dañ koo ëmb ak yéene ak xol ak victoire force loolu laa gis na ci Youssou Ndour te gis Youssou Ndour nii gëj naa gis ñu indi mbëri Guédiawaye jëndi ko ndax Balla Gaye gëj naa ñëw ci làmb tey bu ñëwee ci làmb doomam mooy bëre doomam buy bëre Youssou Ndour euh, euh, Balla Gaye doomam la père Balla Gaye Ndour moo indi moo indi Balla Gaye ci écurie bi moo def li li nga xam ne moo nekk si moom tey nag père Balla Gaye bu génne àdduna doom war a bëre Balla Gaye daa war a delloo mbatt ca ndaa la fay bor bi taxawu ko taxawu ko doomam la kon euh, làmb nii la nee naa leen tafaatin gisuma ko waaye dafa am empêchement tafaatin ndax moom bokk na ci bëri yoo xamante ne kon Modou Lo muusu bawol sax buy bëree day ñëw waaye ak lu bënti xew xale yi taaral nañ stade bi euh, Ibou Laye première première journée mu réussir ko te c'est pas évident en tout cas làmb day tëj mais wax dëgg yàlla tey làmb saf na neex rëg-rëg ñëw na Franc ñëw na Modou ñëw na Papa ñëw na képp koo xamante ni ci làmb nga bokk rek ñëw na waaye Lamine Golo ngoog ndax waxoon na dernière bain yi ma nga jógee cafan cafan la jóge mu ne Guinée dernière bain yi nee na ca Guinée la jóge waaye indi na ko ñaari bain yi xooma nag ko sotti wala sotteegu ko dans quelques instants léegi lépp leer. liñ doon nëbb lépp day leer. man yaay lamb. ñu xool kan mooy tëjante nag ñu xool ñoom ñaar kan mooy fanaanoo ak défaite pour saison déwén. tey boo xoolee ma fi jógee ci diggante ak Alioune Junior ndam la fi jëlee. Youssou Ndour ba fi jógee. ak caatu dañ ko dóor mu daanu mu nelaw. ak ñu xool na xam ndax dina yeewal du yeewu. en tout cas ak toute fa de toute façon do ñam ñaar ku ci daan da ngay yeewoo un mois bi novembre victoire mais ku ci daanu nag da ngay tëj ak saison ak défaite.

amul mbëkkee amul pàdde amul weexee Ibulaay jaajëf mention spéciale Ibulaay tey sa première journée mu demee nii ñu ngi lay félicité arbitre sifflé na combat bi tombeeg dimanche 27 août 2023 fii ci arène nationale Youssou Ndour lañ jàkkaar lool bàyyi ko école di Balla Gaye Mor Kankang moo ñu woon ginnaaw bàyyi ko écrit Cheikh Mbaba Serigne waaye Thierry lamb ji lu mu si jaaxal mooy tey Thierry lamb ji du am 3 minutes doom 3 minutes. lamb ji bu amee 3 minutes man Serigne ma dagg sama kurus. déedéet waay billaay wallaay. Thier ñaari xale yi di bëre dañoo ñamante laata arbitre bi di sifflé ñaari xale yi di bëre ku nekk am na fi nga xamante ni fa la lamb ji yóbbu boo ko daanee ñaari xale yi di bëre ku nekk fi nga jógee goxu lamb la kii di Mor Kankang bu daanee Youssou Ndour am na fu mu ko mën a mën yóbbu waaye kii di Youssou Ndour bu daanee Mor Kankang tey da koy wàccaat fi mu fi nga xamante ni fa la nekkoon te woon fa moom Youssou Ndour ji nar a gaaw la Thier boo defee doo gis jël. boo defee doo gis jël kooku mooy Serigne borom seen lamb waaye Mor Kankang ak Youssou Ndour Mor Kankang jóge ci victoire digganteem ak Alioune Sèye Junior fii la woon Youssou Ndour jóge ci défaite digganteem ak Thiatou Yoff fii la woon kon combat la bi, nga xamante ni bii défaite interdit ci Youssou Ndour waaye combat la bu nga xamante ni dafa am importance ñaari xale yi muy Mor Kankang muy Youssou Ndour Mor Kankang ànd ak waa ànd ak waa Sikir Igri Cheikh Mbaba ànd waa Refan waa Réewuma woo waa Agi waa Mbaa Fay Youssou dox ci kawam lu fay xew mi ngi dox ci kawam mi ngi dox ci kawam da koy ërtal wala. def na leer. door na ko door na ko Mor Kankang mi ngi replier jëm si kawam. Mor dafa replier. Tambar jëm doon na ko door mu daanu doon na ko ñoom kankang yu sunu ñoom ñaar mënut a ñàkk loolu mënut a ñàkk waaw ñu xeex day génn saako yi wala non du génn day dem du génn day dem day saan du génn jël na ko jël na ko lu fay xew lu fay xew ci tànk ya la da ngay jël lamb ja jeex na faax na ko lamb ja jeex na cher lu fay xew da koy daan wala lamb ja jeex na taxawal wala cher lamb ji fii lay jeexee xale yaa ngay bëre cher lamb ji day jeex fii lay jeexee fii lay jeexee kankang Youssou Ndour Youssou Ndour daa xaw a diis kankang moo ñu woon ginnaaw mais Mor kankang mi ngi wane mais mais Youssou jàppul de Youssou jàppul Mor kankang attention Mor xar jàppee eh, ko rey Youssou Ndour ngay door Youssou Ndour mais na may ju xeex bi moom Youssou Ndour waaw te concentré si bëre bi ba pare jege na saako yi mi bëre daa mën bëre waaye Balla Gaye nooyeetul de kenn nooyeetul ndeysaan moment bi kenn mbay guy gi mi ci ginnaaw awa Diop sa Touba moment bi nooyeetul waaw awa Diop depuis di fan si Balla Gaye 2 waaw mi ngi sa Touba instant yi nooyeetuñu soo ngi dóor waa géej waay nooyeetuñu bëgg mu sigi waa Colobane nooyeetuñu waa Bawal waa Waalo nelawtuñu ndeysaan seen doom yooyu bëri ceer Mor Kankang yu sunduur eh attention ba na ñoom ñaar une minute de combat waaye di nuyu gars yi seetaan ci li Sénégal TV une minute de combat jël na ko li muy bëre jël na ko mu bañ attention li mu bëgg a bëre Kankang yu li mu bëgg a bëre door na ko tànk bu bañ. eh eh jël na coup eh jël na coup waaw. arbitre bi le mu door ko. beure ci beure la bokk. ci beure la bokk. beure da ngay say say beure beure da ngay say say beure Kang-Kang Youssou Ndour. arbitre bi la war wala avertissement pour mort waroo doore am nga ben door na ko jël na avertissement. arbitre bi la war na combat bi. ñu ngi lay demaat te mort suuf la jëm Thier Thier. teen moom suuf la jëm te Youssou Ndour tànk lay wëri Youssou Ndour dangaa bëgg a ërtal door ko coup bu mën yàq lambam yàq ko dóoree coup bu dalee mais Youssou ni muy da ko bàyyi tànk la jëm de ci la jëm Mor Kang Kang Youssou Ndour waaw jël na ko jël na ko xew yu dafa diis Thier ana caxabal Thier dafa naa bëri bëri bu ci moom. dafa diis ba pare dafa xaw a diis. ba pare mën na bëri. ba pare dafa am doole. teer lii Mor Kanga bëre maa la ko fi daanu Youssou Ndour Youssou Ndour daa diis te Mor saa yu forcé yu bu ko mbaale da koy da koy daan kat at bi mën na si am booba kon na xool lu muy def bu baax a baax moom Mor Kanga. lu muy def na leer. lu muy def na leer. deux minutes de combat Thier. ba tey ñoom ñaar ñu ci biir géew bi. ñoom ñaar ba léegi ndeysaan Mor Kanga Youssou Ndour combat bi nag mënut a yomb Serigne. non mënut a yomb mais du dépasse 3 minutes yi. boo xoolee ñoom ñaar da nga am loo pare combat bi. maa la wax loolu mais 3 minutes du ko weesu. am lu lay xaar. maa la wax loolu. Mor Kankang Youssou Ndour Youssou ngi dóor bëggu ma siggi. bëggu ma siggi moom Youssou ngi dóor bëggu lu mën a am mooy Mor ndaanaan la Thier. non Mor jàmbaar la. ba pare dafa taal ay bi tey Mor Kankang. dafa taal stade bi. da koo duy. ba di bëre poids lu mel nii tenir ko nii. tenir ko xeex ak moom. Balla Gaye indi ko. Balla Gaye indi ko pression boobu yëpp gisoo ko mais Mor Kankan ku jar a bàyyi xel la si làmb lu mën a am lu mën a arrivé Mor Kankan si làmb ji dañ ko bàyyi xel. dañ ko bàyyi xel bu baax. ak lu mën di xew. lu mën a lu ko mën di arrivé kay. El Hadj bu Dieng am na lu ma waxoon nag. man man mii am na lu ma waxoon El Hadj bu Dieng. man mii sax am na lu ma wax. am lu ma dee ni ma gën a combat ni muy demee. man mii am na lu ma wax si tool bi sëfle na Malick lu xew. Ardo Ardo. demna na Ardo. Ardo. Ardo am na gan. Ardo Ardo. dem na Ardo. day naan kaay wala day naan soow. non soow lay naan. Ah. soow. ndeysaan mi ngi noonu. na naan soow daal di ñëwaat. dem Ardo moom Mor Kankang mi ci Ardo bi di faju. ndeysaan. mi ngi ci médecin bi di faju moom Mor Kankang. borom kalama le feccal kalama le ndeysaan combat bi mënut a yomb. xool ko ci médecin bi xool ko moom Mor Kankang. médecin bi ëmb na ko. bari. ku jël moo bari. ku yee bëree daf ko pompé. mel ni mbàccum gerte. bëri na ñu naan deux minutes ceer. deux minutes de combat yu tànk jër jàppante xeex daal di dellusiwaat bu ñu dellusiwaatee nag combat bi ñu ma ñu jaaxle ko. parce que Mor di song. Mor pare na si nge médecin bi. pare na day ñëwaat ndaanaan la mais song bi muy song saa yu ko Youssou Ndour bàyyi xel si song bi bu ko soobee mën na ko yokk. mën na ko yokk tànk jël bu rëy waaye Youssou Ndour tamit ba mu góolu boppam ba di bàyyi Mor di ko ndax ponkal xajul si yàlla te Mor Kang Kang bërekat la te am na fa am ba fa toll Youssou Ndour mën na ko daan jël bi nga xamante ni ñëpp dañuy taf seen loxo seen géem ceer mais nag Youssou Ndour tamit tekki na téere yi si la doon jàpp si la Mor doon jàpp waaw day xeex ak moom ndax sëriñ bi du am lay lamb ji Youssou Ndour fa waroon xeex ak Mor Kang Kang bagaar ak moom comme réparé ak ki nga xamante ni mooy franc loolu la Youssou Ndour war bëre ak ki nga xamante ni mooy Mor Kang Kang warul jàppante ak moom warul jàppante ak moom ndax bu jàppante ak Mor Mor daa am yu sew yu nekk si suuf du lamb jàppante doo gis nga ërtal na ko jël na ko eh tor ma jël na kuude jël na kuude yooru na xew éperkil Youssou Baldé jël na ko jël na ko lu fay xew jël na ko Mor Kankang dafa diis Youssou da koy viré ba mu jeex da nga nar viré ba mu jeex dafa diis yu daal liggéey jàpp bu jàppee bu jàppee sa action mën naam am mi ngi yootu ngeen moom Youssou Ndour mi ngi yóotu jàpp te bu leen fàtte Youssou mën bëre ceer a bëre ma ngay door mi ngi koy pompé ay coups ma ngay door bëgg mu sigi pour mu sigi pour mu mën ko jàpp soo ngi door ngi door moom Youssou Ndour ba pare nag loo ci muy Père Balla champion d'Afrique de boxe solo boxe solo mën dafa mën boxe moom Père Balla champion d'Afrique la woon te bu ko doonee dana soxor moom Youssou Ndour waaye gàcc Mor Kankang Mor Kankang Youssou Ndour ba tey ñoom ñaar ñi ci biir géew bi ginnaaw bi Mor Kankang demee Ardo ñëwaat ñi ci biir géew ñoom mënul yomb ndax mooy tëj saison bi Thier Zarka nga ngi suñu ba tey jàppante bi yàgg na. ku def action daan de ku def action mën na daan. attention caxabal caxabal na ko lu fay xew egg suuf takk na ko daan na ko. la ilaha illallah daan na ko bul Elhadj bu Diène du nit. daan na ko Elhadj Diène du nit. Elhadj bu Diène du nit du nit daan na ko. Elhadj bu Diène du nit. tay daan waxoon na ma ko daan na ko. waxoon na ma ko daan na ko. waxoon na ma ko daan na ko cer. xoolal ma lii billaay daan na ko la ilaha illallah Elhadj bu Diène waxoon na ma ko newoon na ma. ne woon na ma Youssou Ndour da daan. dafa diis waxoon na ma ko waxoon naa dafa diis. dafa diis da koy woon. dafa diis léeg-léeg ku tane action lay daan.